ok Salam alaikum bien sûr chers internet de de SDTV Nous ñu partout au Sénégal et à travers le monde ñu ngi ci seen euh, numéro bi nga émission bi ñu leen di le message dans le hip hop alors tey nag ñu dem euh, DK City sa xel dem ci plateau sa xel dem ci benn ndaanaan c'est un artiste international il n'est plus à présenter dans le game que ça soit au niveau national et international parce que tamit il s'est fait un nom lui-même et bien sûr il se nomme Elzo Jambadong Elzo maaleykum salam bro. alors Yangi ngi euh, donc euh, ci euh, SDTV donc une découverte TV dans l'émission, le message et dans le hip hop alors ñu bàyyi la nga nuyoog internet yëpp les seetaan. waaw maa ngi lay nuyu yow déjà di la remercier ci invitation bi ni nuyu ñëpp di leen seetaan ñëpp ñi ñuy seetaan monsieur Boy Elzio jaamu dong la waaw nek installé leen ci jàmm donc. <laughs> alors tey moom yaa ñu dalal donc euh, actuellement ñu ngi fii nga xamante ne bien sûr euh, mooy Golden Coffee alors Elzo donc euh, nekk nga artiste boo xam ne tu es plus tu n'es plus à présenter dans le milieu hip hop li ñu ci mën a wax rek mooy comment t'as fait naka nga mën a defoon naka nga def ba mën a jongler tes études le hip hop et donc li nga xamante ne mooy présentation bi nga am dans le game. ouais je l'ai fait naturellement sans aucun calcul franchement pardon dama nekkoon euh, di jàng mais tout le temps man musuma arrêté di bind chaque fois que j'ai eu l'occasion xam ne fii micro pour enregistrer dama fay dem quand j'ai eu l'occasion jënd sama micro bopp di enregistrer sama bopp je l'ai fait euh, donc yàlla daf ma rencontré sama benn bro Mr Thier qui a fait les 80 minimum de toutes mes productions euh, moom it mu nekkoon étudiant comme man mel ni man bëgg hip hop ñu jobando ay son yu bëri mo ñu ñëk am suñu groupe bu tuddu Jamdong après ñu jobando continuer di def ay son ba ma dem ba gis ne que man instant bi j'ai même de quoi sortir un projet solo ma am voilà ben contexte ben ben concept bu tuddu Free Dope ma ne dama koy mayé gratuitement ma sanni ko et puis mu def ben ben buzz bo xam man xalatuma ko woon xaaruma ko woon donc ça s'est fait naturellement année suis la pare samay étude ma gis ne que li ni kon mën na marché lii laa mës mais peut-être ñemewu il fallait que je am lenn lu en train euh, man mën voilà art bi musique bi mën sama métier à temps plein et depuis lors ben, on s'est lancé ça fait maintenant cinq ans. alors Frido bi gis nañ euh, li nga ampleur euh, mais comment ñu tu fait pour imposer au niveau international et national vu que c'était pas facile étant à partir de l'extérieur. Ah, c'était pas facile, mais je pense que c'était un truc frais qui, a mis les gens d'accord. C'était un truc nouveau, c'était de la qualité. On a médias après allier Sénégal avec France aussi. Euh, France lu mu nekk nekk France moom ça reste quand même bëri na bëri na ay sénégalais. voilà am nañ fa benn grande communauté waaye donc loolu je pense que ça a beaucoup aidé euh, donc loolu tax musuma déconnecté daal ak li xew Sénégal te du ma fi géej jamais aussi quoi. du ma fi géej jamais je suis tout le temps en contact ak sama famille te saa moo amee occasion ñëw même période bi ma nekkee étudiant dama doon ñëw tout le temps tout le temps et puis léegi gën na bëri donc moo tax ma ma def j'ai pu faire le pont entre les deux quoi alors est-ce que euh, mon nañ ne euh, donc euh, community dafa am ben ampleur bu muy def sa carrière vu que bu elles ont Elzo muy événement donc les gens se disent mais attends public gis elles ont en fait mais événement day feestel ouais ouais c'est sûr c'est sûr parce que bon ku quand même li comme sa tour émission bi message bi lancé je pense que énergie bi ngay énergie boobu ngay attirer donc yow li ngay woté ak li ngay dox je pense que nit ñu nit ñoo xamante ne il s'identifie à valeur yi ngay jëm véhiculer ñom ñoy muju nek ce public donc bien sûr man suma né jam jàmm dong am ben ligne de conduite bu may am c'est sûr que way ñi may déglu tamit wa dinañ dañ wa non lañuy ñuy mën mel quoi alors gis nañ ne aussi euh, donc euh, da ngay tu as tendance à faire des sons commerciaux plus que plus que classique en fait euh, public bien ko waral wala c'est c'est en toi en fait. selon moi je fais ce que j'ai envie de faire après c'est pas calculé. Euh, ce qui devient euh, viral voilà comme ce que tu appelles les marché. Mm-hmm. franchement chaque fois que li ne lii des marchés mm-hmm. tu vois quand j'ai fait un son comme Roy Timom, c'était un hommage à ma mère quand j'ai fait dernièrement Sai Sai, je ne pensais pas que mon arène que son morceau marche sur album, tu vois, parce que c'était c'est un thème, c'est un truc euh, conscient du ego trip. un message, de message. Donc euh, non, franchement, c'est pas calculé. Pour moi, je fais autant de sons euh, comme tu dis classiques, voilà, ils sont conscients. J'ai plus de sons en fait à thème que de sons juste pour s'enjailler mais public bi tamit ñoo bëgg lu leen di fecc loo lu leen di kii loo donc euh, loolu ñoom ñoo koy jël wala wala par exemple tu vas faire un, un son nga wax ci waxu spiritualité wala waxu politique nga def beneen son nga wax ci waxu mbëggeel son mbëggeel bi am 1 million de vues rapidement Benen son bi am 100 000 et les gens te collent cette étiquette là que yow son mbëggeel rek ngay def alors que li ngay def yenen son sax mo ëpp mais juste que son son bi mo mo ëpp voilà dafa laaj ñuy déglu album yi di xol pour xam ñun li ñuy proposer mais public bi moy def que son bobu noonu peu buzz après ñi ñi xamul yow li ngay def lépp dañuy que ne loolu kese nga def alors que def nga yenen affaire yu bëri quoi. yu bokul ak loolu. d'accord alors euh, bu ñu aussi euh, ci sa carrière euh, gis nañ ne aussi donc da nga tam di wax free hein, free Season 1, free Season 2. après nga dem ba ci biir ya Massina bi aussi on peut s'attendre à free Season 3, pourquoi le nom le free en fait lan et puis yow da ngay wax aussi Elzo aka free en fait. free en fait mo doon sama premier nom d'artiste quoi. voilà. Elzo lañ ma mus di woowee man sama waa gaale sama waa koñ ñëpp Elzo lañ ma doon woowee ma commencé rap tuddee sama bopp Free E ne man maay dama Free Free Elzo en fait mais E bi rek laa gardé. parce que dama faawoon easy E ma ne man maay free E foofu la free e bi jógee léegi après nag bi ma demee ba ci biir ma gis ne free E bon c'est un mot free c'est anglais Elzo moo gën a original baal ma jël ma def ko Elzo bu jàmm dong donc d'où le nom Elzo jàmm quoi voilà mais ba léegi nag free bi moom daf ma topp moom mooy free dope free season donc c'est sûr que free season 3 4 5 it day am ah ouais daf ça va venir Inshallah. allah alors euh, bu ñu ñëwee aussi euh, ci li nga xamante ne quatre projets yi nga jot a donc euh, mun nañ ne trois mixtape wala genre EP ak ñaari mixtape ak benn album. donc deux albums voilà donc mu nekk loo xam ne vraiment en en tant que nga nekk au niveau de l'international, international di représente au niveau l' international et au Sénégal loo xam ne yombul mais gis nañu aussi respect bi dañ ko am ci game bi ah donc amul kenn man c' rare quoi ma gis ko ne damay clash Elzo wala genre lan mooy sa secret ci côté boobu. <laughs> Franchement, je sais pas. C'est moi, noirs Peut-être ligne de conduite. Euh, je, je, sais pas. Franchement, je sais pas. <laughs> Alors donc euh, daanoon nañ gis aussi yow Dib ak elle, euh, Brick fait une benn son tuddee ko Fay Ma Money donc mu un message aussi donc li que ci par rapport la jeunesse par rapport à ñi di jël ci concert yi mm-hmm. donc on s'attendait à ce que mu un projet mais après un ko mm-hmm plus tard après nous disons aussi que vous avez les mêmes dates pour le 28 décembre fois tomber, ou il y a un problème entre vous c'est quoi non il y a aucun problème à ce que je sache il a aucun problème c'était pas on n'avait pas de projet de sortir un, EP ou un album ensemble hein. dañu de de concert et puis tu vois vibe est nice on a passé de bons moments ensemble aar euh, bu akhlu break, mang koy nuyu mu ne pourquoi pas ñu defando ben son amoon na refrain bi ak couplet bi après ñun ñu bind ci suñu ki mu nek tu vois un son bu nice et puis le fait que ñu bokk date yi honnêtement waxuñu ci nak ñun ñett ñep waaw ah. waxuma ci ak waa waxuma ci ak deep, mais man en tout cas du luma déranger parce que man ñaan affaire yi dox ba nga xamantene le même jour ñun voilà événement yu bëri voilà ku nekk dem fi ngay dem et c'est possible parce que Sénégal tu vois y a plus de 70 de la population c'est des jeunes de moins de 30 ans donc euh, ñoom ñëpp dañuy déglu donc vraiment si on est bien organisé loolu mën na nekk ku concert dox sachant que endroit yi bokkul ville yi du bokk tu vois donc public yi fay dem au final du ma lu ci. alors damay venu ci un euh, son bu ma marqué Je roy ci moom euh, marqué son dafa émotif en fait est-ce que mën nga ñu expliquer sens bi la en fait le fait que nga def son la dama ko bind ba Donc, musique man man dama son am comme slam. parce que le texte était lourd et personnel. sama sama c'est un vécu waxna ci sama papa nga xam dafa décédé di ci wax sama yaay euh, euh, voilà yaa li ngay li ngay liggéey yalla yalla dula sétane tam ñu man ñun ñëpp ci yow lañuy roy donc vraiment sûr c'est du vécu et Matar ñëw indi ci toucham mr Mister bi mo doon wax sank yok ci toucham et voilà ça mu nek ben cocktail explosif quoi <laughs> alors gis nañ aussi euh, donc sama caatu kër donc mon nekk ay son son yoo xam ne aussi xale yi ñoo ko doon xëccoo parce que elles Elzo Thiat la wala c' est juste cible la soxla woon mu jox leen ko. non c'est parce que chat la. <laughs> ok alors gis nañu aussi avec euh, presque les 90 de tes buts Momoko moo job mais après d'une partie on voit qu'il y a des touches au niveau du Sénégal est-ce qu'on peut s'attendre à ce que mu gën large wala voilà, pourquoi le choix parce que Thier nga xamoon ou bien wala da nga dem ba ci au Sénégal aussi Amna na talent alors ah, c'est les deux Thier laa xamoon après ma dem ba ci biir xamante ak yeneen gars ku mel ni Itrac comme mel Euroglyph, Yoroglyph euh, waaye ñu may def ay ñu may defal ay produits yu yu donc je suis pas fermé du tout C'est juste que voilà le disponible rek la job ak moi, quoi mais je suis pas fermé du tout quoi. alors donc nous nañu aussi euh, ci Galsen Hip Hop Awards cinquième édition quatre années passées Elzo chaque fois des dañ koy nominé ci catégorie yu mais on finish on voit pas Elzo gars yi di ci coow du ma Elzo wax du Là dégg Elzo wax euh, lan mooy sa secret ci côté boobu alors que am na ñoo xam ne même boo ci présélection rek dañuy coow donc et puis félicitations ñu nominé la aussi meilleur EP ak euh, artiste masculin. Merci. et puis c'est du méritant il faut le reconnaître. merci merci frère non affaire yi dara jarul tu vois tollooguñu il faut ramener. man je pense que euh, hip hop bi amagul doole bi mu am tu vois am na lu bëri lu ñu war a terrain bu bu ñu war a gagné. Mm. nañu terrain boobu ba nañu nañu boole doole yi. Euh, man ak ñoom ak lu brique ak ñoom dip ñi ma lay wax noonu toujours dama koy wax gën a jël terrain bi ñu war a jël xam nga après ñu song dëkk yi nekk fii à côté gambie soriwul dara mali mi ngi fii yooyu yëpp c' est des marchés xam nga ñu suñu terrain fii ba pare nañ ko nañ waxuma ñu ñu rivaliser ak malax bi c' est la malax bi du ennemi malax bi du du kii mais am terrain am lu ñu war conquérir tu vois euh, bo gisee khalis bi concert u euh, Dadju wala Niskaap di générer ñun ba légui duñ ko générer est-ce que tu vois je pense que lolu moy débat bi naka lañuy ñuy mën def ba ñun nit ñi nga xamantene am nañ pouvoir d'achat marque yi nga xamantene am nañu xaalis bu ñu mën dugal ñu duggal ko ci ñun lolu moy débat bi tay ji tu vois donc ñun nak pour ñu yegg ci fofu il faut que ñu xam ñun ño bok combat bi mais c'est pas avant c'était am une phrase euh, où rof la defe naa wala dry defe rof mu avant c'était nous contre eux tous maintenant c'est nous contre nous devant eux tous tu vois warul nekk que nous contre nous devant eux dafa war a nous contre eux eux bi c'est pas du ben ennemi mais eux moi, conquérir voilà conquérir le marché après nous gën top, coob ba gën a yegg ben niveau après nous ñu doog a wax voilà ku bob sa bob. mais instant bi l'heure est à la au travail quoi. Et puis nous les féliciter parce que nous avons que yaa travaille avec une euh, marque de boisson au Sénégal di la ñaanal aussi une marque topat là parce que tu as le public tu as l'image et puis euh, li ngay véhiculer aussi vraiment c'est une image qui xamné ça va avec ce que les marques attendent quoi il faut le reconnaître alors euh, fenen fi nga xamantene aussi fofu lay ñëw moy est-ce que aussi bëgg innover bëgg def lu nice war na mun a tax tey bu ñu dem ba hip hop bi dañ koy sentir comme di mbalax la nouvelle génération bi nu ñuy defee hip hop bi léegi di ci mixer yenn instruments yi ba mu xaw a mbalax est-ce que yow am nga message boo leen di jagle ci lu am lu lay métti après. pas du tout ah man moom waa man loolu man dara dérangé wu ma ci parce que artiste quand même na def li mu sentir quoi bu mu bu mu tëj dara gisuma lu ci lu ci problème. li des ci norme hip hop quoi. bon gisuma lu ciy problème franchement man moom personnellement man gisuma lu ciy problème tant que nit ki mi ngi def li mu li mu fil mhm. waaw Euh, ça veut pas dire que rappeur nga rek dafa am loo war a def ak loo warul def peut-être si am na loo war a def ak loo warul def mais bu dee après yow da ngay assumer ne nekkatoo rappeur parce que débat loolu débat moom moom mën nañ débattre fii ah, da ngay gis ko xam ne day ñeen MC la commencé def lu nice bi topp ko alors mu dem ba ci biir day temps gis nga lu xew si gaam si game bi mooy dañu jël téléphone yi di selfie yenn euh, vidéo gars yi et tout donc boo waxee mu ne man musique laay def ko nekkuma rappeur mais musique laay def. waaw man loolu contre moo ko nag. bro. <laughs> non mais boba représentativité le copain. représent bon artiste dal na def lu mu quoi bro franchement. dans ce cas rappeur. dans un rappeur. na def li mu jàpp ne loolu mooy rap man man mi j'ai xaw lan. waaw man monopole bu définition hip hop bi tu vois c'est un truc qui est en perpétuelle euh, évolution tu vois Taïdini, hip hop pour tout le sax. Euh, DJ graffiti b-boy voilà pour moi, même euh, stand up comédie mm-hmm. des fois c'est tous des gens issus du hip hop. humour c'est des gens issus de quartier ay Jamel Debbouze wala même fille, ay Doudou fait des vidéos Le mm. background c'est hip hop là, hip hop lay déglou, rap de boy town c'est de la la culture urbaine Donc culture urbaine c'est large large moi je suis plus pour fédération boobu ma doon wax plutôt que euh, Tech ay barrières. ok Ah, c'est mon opinion personnelle. ok alors gis nañ aussi cette année def nga un peu le tour du Sénégal parce que def nga ay concerts yu bëri donc génn nga dem nga bo dem sax back to the roots euh, mu nekk quelque chose bo xamné je pense que aussi d'être la marqué parce que gis nañ milieu bi et tout euh, pourquoi tant d'années nga doga dem c'est sens bi nga bëggoon lan la waaw bon tant jàgg naa bëgg dem mënu moon dem euh, c'est ça fieruma ci du tout pour man xam nga waru moon toog temps boobu noonu yëpp mais lu yàlla tudd rek noonu lay noonu lay war a noonu lay demee et ça m'a beaucoup inspiré xam nga nit amoo lu dul say say route say racine foofu sama côté yaay la ci li Boubacar côté ci Fouta bi waaw la demoon côté Podor léegi sama paa moom maamam euh, papam il est du Mali fi may wax Maasina voilà il est de Nioro prochaine étape bi foofu la. c'est pourquoi le projet. hein c'est pourquoi le projet. Exactement, ce que le projet D'accord. donc euh, plus tard ci un projet les gens vont comprendre lan moo tax ma tuddee parce que c'est mon projet qui ay une suite logique Je n'ai pas encore tout tout dévoilé. <laughs> d'accord alors donc Elzo dañuy un événement qui est aussi parce que le 28 euh, décembre nekkeen un événement qui est euh, donc am donc parce que war nga dem Grand Théâtre ci Esplanade bi pourquoi le 28 a une signification de sa carrière ci c'est un choix comme ça. le chiffre 28. C'est la première fois, c'est la première année que nous le 28. C'était stratégiquement, c'était la date intéressante. Euh, c'est le dernier samedi de l'année. Voilà, donc nous tel nañu date bi depuis depuis daaw en fait. Depuis daaw xamone nañ né tour plateau bi le 28 lañ ko bëgg Donc dafa tomber on voulait le faire le dernier samedi de l'année hein. ça n'a rien à voir avec le chiffre 28. Et donc ça va être le plus grand événement que j'ai jamais organisé. Euh, est préparé, niveau artistique, niveau organisation pour la réussite de l'événement de manière globale. Donc Ningchi Ligue depuis un an donc euh, ça promet du lourd lourd lourd lourd. oui parce que euh, ku seetaan Galsen Hip Hop Awards bi ramener euh, donc Elzo mu ngi entraîné wu De concert en fait donc spectacle lay def. te de dafa manque ci game donc on peut s'attendre à quoi ce jour on peut s'attendre à du spectacle on peut s'attendre au show de l'année. je le dis je l'assume bi may que dem Sorano. Euh, j'avais même pas d'album, tu vois. Et jour bobo les gens ont vu que man, li may dem di jouer ci ay théâtre pour lolo quoi. pour nous nii rek man ak sama DJ bim bam bu mu jeex indi danseurs indi ay jour asiko chorale sax ñëwoon na tu vois Il y avait même une chorale léegi nous nous ñëpp euh, chaque année dañuy ñëwaat donc pour ñu gën a am euh, vitrine dañu bokk ci show bi Moi dans sax nous ñu def festival donc en fait le vendredi 27 artistes Yo exposés yëpp dañuy exposer ci esplanade bi fa c'est gratuit Il y aura de la musique il y aura à manger xam nga dina am ay DJ des am ay maquilleuse dina am ay mhm. day vraiment un spectacle plus genre expo lay mais très organisé c'est gratuit samedi bi 28 mooy sama concert mhm. dimanche Rapatak dimanche 29 bi damay teg benn terrain basket waa NBA Africa ñoo may tegal terrain basket ak Serso. lépp ci même lieu bi lépp même lieu bi waaw. waaw dama jël esplanade vendredi 27 samedi 28 dimanche 29 Inshallah donc euh, je pense que l'événement événement pour pour ñu l'âme l'âme mais pourquoi mon un festival est ko grand théâtre je pense que aussi y a un message pour l'air Mais donc euh, mais Elzo question parce que dama gis gars yi di la ci jéew ah secret le fait que à partir de l'extérieur, il s'impose mu au Sénégal il s'impose et puis donc donc ko a ci euh, <laughs> je sais pas lu yombul en fait parce que xam nañ ne game bi y' a toujours les fans qui parlent de gauche à droite euh, yenn saa ñu ne waaye tontul di waxal li mais elles ont ko gis en fait. et puis il fait il fait il fait partie des rares MC yo xamné ne euh, mëna na côtoyer ku né en fait. hein donc ko dégg ci yéen yi mun na côtoyer ne tey bu ay problème dans le game il peut être un facilitateur. c'est vrai c'est vrai je je l'espère en tout cas mais je suis pas le premier là le beesul quoi les question boobu li day ñëwaat mais alors que man gisuma ci dara loo xam ne dafa exceptionnel parce que mun naa fi lim ñu bëri ñoo xam ne musuñu am benn problème ak kenn quoi je pense que Fada Freddy musuma ko dégg ci dara peut-être que y ben une période ay rapajo bu mu ñëwé xawna def dara nga def ñom tamit ñu def microphone soldat nga xam bon peut-être réplique mais ça n'a jamais été voilà musul musul ba musul dépassé et après dañ jall ci lenen continuer ko et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples du des ñi ngi def pourquoi pas un jeune de notre génération Elzo et les vidéos lan moy sa secret tu aimes beaucoup les vidéos euh, donc te as ci gis bi quoi c'est quoi le secret bah, parce que euh, la musique se, regarde beaucoup plus même qu'elle ne s'écoute. Il hein. faut, produire des vidéos, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut, faut créer du contenu sans arrêt. Des, Je suis, j'aime bien la créativité. J'aime bien les plan là, tu vois. Je suis en mode repérage. et j'aime bien les, les, les, street, les street vidéos, les street clips, tu vois. Je euh, suis Dubai, Dubaï a même pas deux trois semaines. tourner tourner un clip avec mon iPhone. tu vois to ko de je ko ma la clip semaine prochaine donc c'est pour ça j'aime bien les vidéos Je clip officiel à 3 millions semaine di romb ci koñ bi booy di football ma tourné ben freestyle mais quoi voilà et c'est c'est comme ça que je je je, je vis mon hip hop. <laughs> alors mon nek aussi le nice et puis ñuy shout out bien sûr ton staff parce que gis nañ né yor nga staff bu bo xamné euh, xam nañ lu ñuy def amna ci ben expérience bu ndaw bu ma gis euh, parce que dañu xam sa image bo lo signé xam nañ fi ngay dem ak fi nga wara a jouer euh yene yi dañu gis artiste yoo xam dañu yegg ba scène ba paré ñu dogal négocier né lutax mu yegg fi war yegg fi euh j'ai vu avec ton ton manager un jour gis naa action bobo donc ce qui veut dire c'est staff xamnañ nañ lu ñuy def té lolu Sénégal dañu tam di jël entre le copinage au lieu ñu jël ku nek lu mu quoi donc walloof a ben ci image bobu parce que dafa am lo signé waratoo dem ci yenn marqué et tout donc mu nekkoon lu nice donc ma féliciter ci lolu et tout donc pour te dire que temps staff bo xamné c'est lourd euh, lo ci mëna japp jàpp nga japp ci donc staff lan lay def ci artiste mooy lépp <laughs> mooy lépp munoo munoo munoo ne tu peux pas au four et au moulin boo boo bëggee nekk di bind say texte ba pare di négocier say contrat wala say doo ci génn waaye comme ci laa dit shout out benn xam nga nekk ci day and night amul noppaliku amul nelaw euh, ba pare ouais expérience mooy def lépp mhm. on xam nga ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jàng di avancer di màgg Euh, am na erreur yo xamantene voilà dootuñu ko on peut plus se le permettre donc euh, loolu nañ job nañ gën a professionnel euh, Gomko et puis ça va payer. Alors donc euh, c'est un plaisir euh, madalalon dalaloon ki nga a ne moi Elzo Jamdong donc dama koy bàyyi d'abord mu wax ñu spectacle bi lan lañ ci war wax aussi instant bi juste après le spectacle c'est quoi les projets dans l'avenir les derniers yi nga parce que Sénégal moom dañu tam dernier jour fan lañ que les tickets les restants quoi parce que bon moi loolu. ticket yi moom c'est disponible déjà am na numéro yi joxe naa ko ma page je ngi jégalu mon numéro bi. Voilà, wala am numéro pour moi jàpp quand même voilà ok 77 158 22 65 ñu livré leen Il y a MTIC qui livre ça suñu partenaire la mi sur ci sama page mes réseaux sociaux y euh, a un magasin Wonder Food mais na gars yi teel a jënd prévente yi xam nga. na a des gens qui ont prévente yi parce que Il y a. waaw boom. nar les projets d'avenir les projets d'avenir 2020 de nouveaux projets. Euh, minimum minimum naa la may ben projet mom 2020 inshallah minimum alors merci beaucoup Elzo donc euh, wa seen SD TV ñu ngi lay jaajëfee bu baax sen découverte TV euh, di la bëggee aussi ci interview bi di jaajëfee bien sûr wa Golden Coffee ñom ñoo ñu dalal fi vraiment di len bëggee bu baax a di jaajëfee sama caméraman yi ma andal donc Muste Dani ak Muste Ousmane nice quoi hein? ma ne Golden seen tee bi neex na Golden seen tee bi merci beaucoup à vous et jaajëf Brakes Up le message dans le hip hop peace.